aousubillahi min asheytan irajim bismillahi irahmani irahim alhamdulillah wasalatu wasalaamu ala maulana rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya himmati cheikh wahduri lana bi hada almahdari wal taatifi bi nadaratin taati lana bi dafar ñi ngi sant yàlla bu baax di jul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, di nuyu waa euh, site Senclic di leen gërëm ci seen taxawaay ci gàmmu gi ñu ko defee depuis gàmmu ba léegi ñu ngi Medina di wër ñiñ mën a waxtaanal ñëpp ñu mën leen a jox seen micro lépp luñ mën a taataan rek ci Maulana Cheikh Ibrahim ak ci yonent bi ak ci lépp loo xamante ne lu baax la ci Medina rek ñu ngi koy taataan kon ñu ngi leen gërëm bu baax ci loolu seen taxawaay di leen ñaanal yàlla. Ah, man nag jaam bu xeebu laa rek <laughs> tey ndigal moo tax ñuy wax di Moustapha ah, Moustapha Seck doom ci Seyda Ndeye Khady ci Cheikh Ibrahim doom Mawlana Cheikh Ibrahim ah, ci bunt boobu la ñuy waxee rek di ñaan yàlla yàlla defal ñu tawféex ci lépp loo xamante ni laaj nañu ko fi ñu ngi ndokkeel ñëpp ci weer wi nga xamante ni weer wi weerab Mawlana Cheikh Ibrahim ndax moom moo ci ndokkeel boppam moo ne weer bi weeram mooy na hani an li ibrahima laaxa hilaaluhu hilaalun bada li naadirina jamaalu hilaalu rabiin fihi jaa muhammadun fa tammalana albushra wa amma nawaalu ci ndokkeel boppam ci ndokkeel bu mu ci ndokkeel boppam ñu ngi ciy jaaree di ko ci ndokkeel du ndokkeel waa Medina yëpp di ndokkeel xalifa cheikh Mouhamadul Mahi qaadimul umma di ndokkeel njabooti Mawlana Cheikh Ibrahim gi yëpp di ndokkeel Seyda Ndeye Khady bint Cheikh Ibrahim mii toog yëpp ci loolu di wax rek ne gàmmu moom mooy gàmmu rek ñu ko ñëpp xamee Baye waxoon na ne gàmmu du dara lu dul ne di nettali siire yonent bi parfois ñu dugal ay woy loolu rek mooy ba mooy gàmmu mooy di yon di wax ci yonent bi fi juddoo wala balaa muy juddoo wala ca leer ga nuñ ko mën a defee rek mooy na wax ji na aju ci yonent bi rek ginnaaw loolu buñ demee ba te taxalla loolu am daax maanaam di dugal ay woy di tagg yonent bi sallallahu alayhi loolu rek mooy gàmmu fii Medina koy defee nag ñëpp gis nañ ko mooy ne dañuy tagg bi dañuy euh, dañuy bégee yonent bi sallallahu alayhi wa euh, ndax yàlla subhanahu wa moo moo wax ne am lay bëggee la mi nga xamante ni na laa bañ a nekk sa itte waaye bàyyi daf lay wax na la gannaaw loolu yëpp tamit mu ne alayhi salaatullahi gu ma salaamuhu biha usqaa wa man habbani usqi maanaam maa ngi julli ci bi nga xamante ni biha usqa maanaam ci julli ci yonent bi man ci dënn bi maarifatu billah liñ ma toppee tijaaniye bi nga xam ne loolu yëpp maa ngi ko am ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne waaye tamit képp koo xamante ne bëgg na ma usxihi ma nàndal ko ko lim koy nàngalee mooy julli ci ndax ñun ñëpp xam nañ boo ñëwee ne da bëgg a xam yàlla dem ci sa cheikh murabbi jox ko sa bopp lim lay jox mooy ay salaatul fatiha lay jox moo xam mi juróomi téeméer moo xam la ëpp loolu ne la demal boo julee balaa nga julli fajar nga def ko boo julee fajar nga def ko ginnaaw tusbaar nga def ko nangam jox laay heure la def ko kon li mu wax ne bi usqa wa man habbani usqi képp koo xamante ne bëgg na ma man ci ci li ma ci li ma nand ci li ma li nga xamante ne naan naa ko mu nekk ci sama dënn bi ci salaatu ala nabi ci salaatu alfatih wala ci salaatu ala nabi ci julli ci yonente bi laa ko amee waay képp koo xamante ne bëgg na tamit ci li ma koy nandalee mooy ci julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci laa koy nandalee dafay wax na ne tamit alayhi salaatullahi wa salaamu bi kasrati taslima ala almustafa alwaqtu mooy ne man julli gi may julli ci bëri gi mu bëri moom moo tax ma raw ku ma raw moo tax ma kawe ku ma kawe loolu nag moom moo ko may mooy li ma wax léegi rek fayda bi nga xamante ni ak may yi nga xamante ni yàlla may na ko lépp ci yonent bi la jógee ndax bi muy wax naan taati bi muy wax naan Mawlana Cheikh Ibrahim taati qariban faydatul xatmi hayyu bi tafriqi axyaari fa taxwa bi mawdii bi muy wax loolu boo fekk na ne naan gi mu doon naan euh, ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci may yi nga xam ne bëbbee na ci yonent bi tam jaaree ko ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa bi muy wax naan pare leen faydatul xatmi mi ngi ñëw de nabi bu ndabi bu fekkee dafa tilim ngeen setal leen ko ngeen ngeen xaar loolu boo fekkee ne kaste mbir yi kaste fees na waaye may gi lépp ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci la ko amee ndax lu yàgg la yonent bi sallallahu alayhi ci jamono yonent bi ku mel ni na Ali ku mel na Seydina Anas ibnu Malik ku mel ni Seydina Aboubacar Seydina Abu Hurayra ñii ñu bëri wax nañ ci lu mel noonu ci maarifatu billah waree na ñoom liñ yëg wala li leen yonent bi yëgal wala lim leen xamal sax ñoom ñemewuñ koo wax ndax Anas wax na ne maa nafas naa aydina min turabir def ni rasulillahi salallah hatta ankarna qulubana mu ne ñun biñ bi ñuy suul yonent bi salallahu alayhi wa sallam bi mu génnee àdduna ci zahir bañ koy suul mu ne ñun parewuñ suur gi sax lu dul na ñun am na leneen luñ lu jolliwaat si suñ xol am na leneen luñ yëg ñoom ci seen xol li ñu yëg ci seen xol lan la lu dul lu bees du jul du julli yi leen yàlla yi leen yàlla wax de du euh, euh, euh, koor yi leen yàlla wax de du joxe azaka yi de du miraas geeg mu du nangam du nangam ci li aju ci lislaam yëpp du loolu de mais dafa am leneen loo xam ne jolli na ci seen xol ñu yëg ko te abi hurayra radiallahu anhu wax na ne axadtu min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jarabayni min al ilmi fa amma ahaduhuma faqad basastuhu lakum wa amma al axaru walaw basastu la qutia minni hada alxulqum mu ne man jël naa ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari xeetu xam mu ne benn bi wax naa leen ko mooy li muy wax ci julli ci koor ci azaka ci miraas ci aj ci nangam ci nangam ci nangam ñëpp dégg nañ ko képp ku jàng xadis rek di ci gis lépp képp ku jàng sunna di nga ci gis loolu waaye mu ne dafa am beneen xam-xam boo xamante ni su ma leen ko waxoon ngeen dagg sama baat bi xam-xam boobu mooy xam-xam bi Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu yàlla jegee ko ko jox ko xusuusiyaam mu tey ci jamono yoon gannaaw bi yonent bi génnee àddina lu ëpp junni at ak ñeenti téeméer yàlla joxal ko toqal ko ko ci xolam mu ñëw toj ci àdduna bi yëpp loolu nag lépp lu ko may mooy mbëggeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wa ak bëril julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak euh, cofeelam ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak di sonnee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax bàyyi lépp lu mu def ci yonent bi rek xamal ne loolu lu lu lu mu war a def la kafaani fi sayril ana wa qaadani ila daati laa najid ara wa xadidu loolu moo ko may yomb yomb yomb bi nga xamante ne yàlla may na ko ci maarifatu billah may na ko muy nandal nit ñi ci maarifatu billah te du am benn joono bu njëkk góor ñi ku buggaan a xam yàlla di nga def lu ëpp dund lépp da koy def li des sa dund yëpp te am nga chance àgg ci ndëgg bu njëkk bi ndëgg bu njëkk bi nga am chance àgg fa am na ñoo xam ne dañ koy def li des seen giiru dund yëpp ba duñ àgg ci ndëgg bu njëkk yi tey xale bu ndaw boo xamante ne fukki at ak juróom ci lay toll wala amagu ko sax moom mooy dugg ci néeg ak kenn koo xam am na ndigal mu sol ko lim koy sol mu jug loolu mooy mooy yombal gi nga xamante ni Baye yàlla may na ko yomb yomb boobu noonu te loolu yëpp ameewu ko lu dul ci buntu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu ne wa hal absaratka aynaaka misli saa'iran suluki wa jazbi wal ulumu fuyudu ndax sa bët yi yow yow mi jàkkaarloog man wala yow mi taju di xool ndax mus ngaa gis ku mel ni man ndax mus ngaa gis ku mel ni man saa'iran suluki wa jazbi wal ulumu fuyudu mu ne sama sóobu ak sama jës bu ak xam-xam yi bëbbu jugee ci pays yàlla bi du ci man ndax yow mus ngaa gis ku mel ni man daf koy wax rekk ci buntu sant yàlla ndax wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis sant yàlla boobu ñun tamit daf ñoo war ñun taaliba Ibrahima ndax lan ndax yàlla daf ñoo tàgg may ñu sëriñ boo xamante ni daf lay jël tàbbal la fi mu lay tàbbal jox la lim lay jox lépp daf la koy jox ci gratuite ba pare tinki la bàyyi la nga dem nga ànd ak sa liberté totale nga dem sa yoon di xuu di xuus di dem di àgg foo xam ne xale boo xam ne amagul ñaar ñaar fukki at di àgg foo xamante ni mag yi juróom ñaar fukki at yi wala juróom ñetti fukki at yi àgguñ fa woon moo tax dañ dañ dañ dañ dañ ko bëgg ko moo ñu war moom Mawlana Cheikh Ibrahim topp ci ay waxam moo ñu war bëgg njabootam gi ñoo ñu war bu nekkul dara sax nañ am colère même bu nekkul may gu may dara sax ne moo ñu digal lii wala digaluñu lii mais nañ am colère ci lim ñu jox jox nañu kado yoo xamante ni mënuñ ko woon a amee fenn fu dul ci moom moom nag mayam gi kenn xamul fu mu toll kenn xamul fu mu commencé kenn xamul fu mu yem xamaltu sirra xaatimil wilaya jamaatu bayna dawqi wa diraya mu ne man maa yenu drapeau xaatimul wilaya drapeau Cheikh Ahmed Tijaani man maa ko yono mu ne ndax lan mu ne ndax dama boole dawqu wa diraya maanaam xam-xam bu ñuy ñam ak xam-xam bu ñuy sonne yëpp boole naa ko mu ne anchadani lisaanu xaali jaariyan taxaddusan bi nafxaatil baari mu ne nag li ma wax nii nag damay sant yàlla rek ci nafxaat yi nga xam ne may yi nga xamante ne yàlla may na ma ko mu ne imtalaal mu ne moom bàyyi mooy dem ba mu yàgg mu ne dafa mel ni mbalka mi fees na maanaam moom mbalkaam lay wax may yi dem na ba nga xamante ni fees na mu naan doy na xot nii mahalan ruwaydan dafal ndànk may yi doy doy na dafal ndànk may yi doy na dafal ndànk ndax lan ndax sama biir fees na mbuut yi doy na sama biir fees na moo tax mu dem ba ne xat xastani bil ilmi wa tasrifi in qultu kun yakun bila taswifi bi mu demee may dem bëri bëri bëri bëri bëri bëri bëri caaligul de mu ne yàlla may na ma dem na ba jox ma kun fa yakun waaye nag du ma ko jëfandikoo de jox na ma xat xastani bil ilmi wa tasrifi in qultu qul yakun bila taswifi jox na ma kun fa yakun mais du ma ko jëfandikoo te adduban ndax teggin teggin googu dafa jar a bàyyi xel loolu ci ñun taalibe yëpp jar naa bàyyi xel nekku na loo mënee rek waxee noonu noo mënee rek jëfee noonu loo sañ rek wax ko salaaxiya buñ la jox rek nga bëgg koo utiliser il faut que ñu ànd ak teggin ndax kii sëriñ bi la xam nga ne aadama yëtu jàpp ko ndax aadama yëtu mooy ne dangay am bëgg-bëgg du sotti da am njaboot yenn saa nga am ci loolu naqari ci ñoom dangay ngay nangam yaa ngi dund ci kaw suuf mais gannaaw bi la yàlla joxe kun fayakun sax yow jëfandikoo ko donc ko delloo yàlla na gis nga ne kun fayakun loolu yàlla rek moo ko yellool loolu mooy may yi loolu mooy mat ji moo tax yàlla am na mayam yoo xamante ni ci ku mat rek la koy teg yal nañu yàlla boole ci ñoom mu laa laakin na ni ittaxadtuhu wakiilan taadduban faxtaara ni xalila la laa jàpp muy sama wakil moom laa jàpp wéeru ci moom yenn saa yi di am soxla du mën a faju di am ay bor di feebar di wér di bëgg dara muy të ndax xam naa ne yàlla moo yelloo kun fayekoon faxtaara ni xalilan gën a tànn moom mooy xaritam ne nag moo tax laa ilaha bu ma waxee laa ilaha illallah rek ñëpp dañ may topp wax laa ilaha illallah mu ne fa faada min ni sirruhu fala ahad yaqsudu ni ma arafa allah samad loolu moo ko may képp ku ko jublu rek xam maarifatu billah xam yàlla mu ne moo xam ne ak jigéen ñi mag ñi ndaw ñi góor ñi euh, jigéen ñi buur yi baadoole yi ñëpp yàlla ku ko jublu rek xam yàlla subhanahu wa euh, may yooyu moo baawaan tasaaroo dem ci muqaddami dem ci doomi dem ci euh, dëkkandoor yi dem ci lépp ba tey macha allah fu waaye jublu bëgg a xam yàlla rek foo tourné rek di nga gis muqaddam boo xamante ni dina la ommat jëmee la ci yàlla subhanahu wa taala te euh, lu ko may lépp mooy wax ji ma commencé wax rek mooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba amu ci kem bëril di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ab ni mu koy defee kenn defewu ko ndax bu nekkul bu nekkul sax ne yàlla dafa ne wax ne inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi waaye moom fexe na ba am ci xusuusiya boo xamante ni moo maye bëbbi may yi ak bëbb yi yëpp ci loolu la jógee moo tax Mawlana Cheikh Ibrahim ak gàmm moom euh, ne woon na moom moom ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nu mel ak yonent bi xel sax mënu koo léem euh, kon nag Mawlana Cheikh Ibrahim ñu ngi koy ndokkeel ci weeram di ko ndokkeel ci juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ndokkeel ñëpp taalibe yëpp di ndokkeel waa Medina yëpp di ndokkeelaat Seyda euh, euh, moom it di ko bu baax ci ci fan yi mag yi nga xamante ni ñoom ñëpp a ngi koy ñoom ñëpp dañ ko doon fuglu ba mu ñëw ñoom ñëpp di ci sonnee génn seen néeg yi génn seen kër yi jël seen alal lépp jox ko taalibe yi euh, gën a gan macha allah ñi ngi ñi ngi sant bu baax sant yàlla bu baax di am mbégte macha allah bu baax a baax.